asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli seenu sala salaam ñu ngi nuyu njiitu kër gi ñaan ñaanal jabootam di nuyu Sénégal ñu ngi nuyu personnel bi bootu si ginnaawam di nuyu le procureur Moussa Yoro Diallo le procureur Cheikh Omar Sow avocat à la Cour suprême ñu ngi nuyu le commissaire Demba Sarr di nuyu la commissaire Diédhiou de la police de Guédiawaye ak le commandant Niang ñu ngi rafetlu seen liggéey ñu ngi nuyu Sénégal yi fu mu ñu nekk di bàyyi xel si seen wér gu ñu ngi nuyu Ousmane Cissé le directeur des mines et de la géologie di it ñaan nit ñi aussi ñu bàyyi xel si appel bi nga xam ni le président de la république def na ko si wàllu civisme te it woo gi woo nit si liggéey dañ ko ci si na nit ñi liggéey ndax réew mi liggéey rek ko mën a sàppi ñoom nag ñi si kaw man jàpp naa ni li tax ñu def leen ñu ngi koy def ñun ñoo def li ñu war a def ñun kon war nañu changer taxawaay yi tey dañu ñëw ci le rhumatisme articulaire aigu muy une infection à streptocoque doomu jàngoro bi koy causé streptocoque lañu koy wax muy lu doy waar nag ndax bu la jàppee liñ koy gën a ràññale mooy sa tàngooru yaram ni mu yokkoo muy fièvre bi nay dem ba 39 degré la mu ëpp ko nay jàpp articulation yi yu mel ni oom bi yu mel ni conc bi yu mel ni kosnan bi yu mel ni tibu jarab dinay indi tàngoor ak di lakk di xonk articulation kon loolu boo ko si mandarga yi ñi xàmmee rhumatisme articulaire aigu dañu ñëw nag si juróomi tegtal yoo xamante ni bu si nekk mën na ko saafara bu njëkk bi mooy euh, xobu samba sayar garab gi nga soo amee garab gi xob bi ngay jël nga baxal ko ba sa yaram ñime ko nga koy dampe yaram bi articulation yi fi muy met nga koy dampe si kàttan yàlla daf koy koy setal soo baxalee xobu xoos aussi le Mitragyna inermis nga sangoo ko lu baax la daf koy oyofal ñetteelu tegtal bi mooy nga jël infusion li ñuy wax xobu ngañaka ngañaka le combretum velutinum boo amee ngañaka boobu sa loxo ba mu fees da nga koy baxal si litre ndox su ko defee nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añoo tegtal bi si topp mooy reenu xoos reenu saxaw reenu keng keng xoos ak saxaw keng mooy la Flugia virosa wala le Flugia microcarpa mooy noobu gën bees microcarpa soo amee ñetti yooyu muy xoos bi muy le mitrigynal inermis di saxaw bi muy le combretum micratum di keng bi mooy le Flugea microcarpa wala Flugea virosa bu ne ñetti leen nga baxal ko si litre ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boole dara ko aw sérimatisme articulaire aigu boobu tegtal bu mujj bi nag mooy nga wut reenu fuuf danga nga koy booleeg jinjeer ak laaj man da ngay jël si reenu fuuf yi juróom jël gosu laaj bi jël ñetti doomi jinjeer yu toll nii nga jaxase ko daggate koom sew su ko defee baxal ko si liis ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añ ba lu si gaaw la ñu si question yi ñu indi tey ku njëkki def nii moom daal saan saan moo ko sonal saan nag tegtal yi bari na trop tegtal yi mais li ñuy wax la euphorbia balsami fera muy salaan reenam moo si gën a gaaw utal juróomi reen nga baxal ko si litre ndox su dee xale kaas ataay la si naan bu dee mag genn kaas mag si kàttan yàlla dina tàggoog saan bu mujj bi kii immature lay laaj maanaam ki nga xam ne dafay saw muy ànd ak deret li si gën a gaaw mooy xobu mbal la ëffal bi a xiirta tibbal si xob bi sa loxo ba mu fees nga baxal ko li si litre ndox cinq mille nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo si kàttanu yàlla di nga tàggoo loolu di hématurie bi mooy ñi nga xam ne dañuy tuur ndox day ànd ak deret léeg-léeg ñun tàggu fii leen jox rendez-vous seen gërëm jërëjëf